Djibril euh, Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay léegi mu moroom. Djibril Diop nga nekk euh, leader u parti politique bi di Front pour la République du Sénégal euh, déjà en tant que euh, homme politique naka nga gisee euh, taskatu xabaar yi jàkkaarloo bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngir marqué 100 yi nga xam ne def na ko ci boppu réewu Sénégal. waaw suma gis-gis da man di la sant d'abord euh, di sant journaliste yëpp ndax euh, foofu sax laa waroon tàmbalee ci français bi mooy tey ji presse bi ñuy wax tey ñëpp xam nañ suñu presse bi dañu am auteur benn presse gënu leen te benn presse mënu leen c'est des responsables et tey ji président bi leen nag laa ci laa moo ma xaw a jaaxal ci wax ci yëpp mm-hmm. mooy président bi mu nekkee di campagne ba mu nekkee secrétaire général lu parti Pastef presque defat structuration parti boobu buñ ko xamee ndax ñun ànd na ak ñoom si yeew yi dañoo waxoon fépp ne ñoom bu ñu gañee li ñuy njëkk a def mooy jóge si bopp u conseil supérieur de la magistrature ñoom loolu lañ waxoon duñ fa sax toog ñu wax ko fépp bind ko fépp ñu gis ni bi mu toogee bañ defee seen assise justice yi nga xam ne dama ne woon man damaa toogoon ne si du temps perdu ndax sénéri bi ak commission bu ñu fa mettu liggéeyoon na les propositions yooyu la indiwaat kon perte temps la ak yàqub xaalis président bi toog nangul wax waaw wala déet mais yenn magistrat ñoo ne dañoo bëgg mu toog ñu bëgg a xamal yan magistrat te bu ñu xoolee conseil supérieur de la magistrature ni mu tëddee buñ dee vingt dafa jaarul yoon ndax bu ñu jëlee président yi ngànk tribunaux yi jëlaat procureur général yi ñu nekk six ñu jël fee six muy douze ak président bi nekk président ak ministre bi nekk vice président léegi ñoom magistrat yi toll si téeméer yi toll ci cinq cent magistrat wala lu ko ëpp ñoom quatre rek lañ ci am mooy wan ni que xam nga bureau boobu moom normalul ndax ñi ci ëpp doole ñoom ñoom seen seeni membre dañ leen dañ leen di fal léegi ñi si des na dañoo nekk membre de droit kon loolu lu ñu war a corriger la te ñoom dañu toogoon ne loolu ñoom buñ ci toogee dañuy bëgg justice libre kon ñu nekk foofu jàll na de côté ci réponse boobu te ñëpp xam na ni fépp ñoom dañ ko waxoon fépp kon nag góor nag ca wax ja moo tax ma ne leen foofu moom moom moom da caa lajji ñaareel bi bu ñu ñëwaatee ñu xool ne fi ñu doon xaar président bi ci wax ak ci réponse mooy si question économique yi ndax xam nañ ni Sénégal dund gi dafa metti xale yi amuñu xëy ñoom commencé waat nañ jëlaat gaalu loo yi di dem réew mi am ay problème yoo xam ne da ko war a régler ponctuel te li ñu gis ñi mooy dañ doon xaar ay moom ay réformes yoo xam ne dina mën a permettre réew mi mën a commencé dox ci kiyam même donte sax trois mois la mais nga commencé si ay jéego mais ci loolu lépp gisaguñ ci dara ay réponse politique lañ gis ak ay tontu politique parce que moom da ñoom dañu waxoon ji ñoon ni ancien régime bi ay sàcc lañ ñii ay lii lañ wax ci wax ba agsi bu ñu agsee mu dem ne topp ma kenn dem te ñoom dañ doon wax ne bu ñu agsee dinañ feeñal sàcc ba léegi gis ñu dara lu ci bougé mu dem bëgg ñëw léere ne ñu man duma ma parparloo ak du ma topp déet yow kay munoo parparloo ak munoo topp ndax yow sa wax dalaa jiitu ñu gis ni kon wax ji ñu wax wax joo xam ne la pour politique la pour defar yëfu boppam moom pour préparer politique gu boppam pour suba bu ñu jëmee législative moo waral nag ma ne nag wax ji wax yëpp ñu nag ah président fi ñu ko doon xaar àggu fa loolu nag euh, laa buggoon nag pour wax si si li ma gis si jàngat bi ma gis. waaw euh, ci ponk yi aussi mu abordé point boo xam ni actuellement moo jur coow li. Euh, jëm ci wàllum euh, fonds politique parce que euh, ñoom ñoo diggee woon ne bu ñu toogee dañuy supprimer fonds politique fonds spéciaux caisse noire ainsi de suite est-ce que dina ko supprimer waaw wala déet moom nag nee na wàllum fonds politique yi fekku fa dara bi mu toogee ci bopp réew mi en plus ñoom fi ñu toll nii la ñu bëgg a teg moom mooy lu ñuy wax fonds secret naka nga gisee kàddu yooyu. waaw xam nga moom xam nga ñoom dañuy jaawale man. assemblée dama koy consulter lu bari mos naa consulter benn député bu naan mu laa bëggoon préciser fait bu naan Demba Diop mu ne ma fonds politique exi existé wul fenn amul fenn si rubrique bu assemblée des fonds spéciaux ñoo fa am ñoo fa am boobu muy wax te fons yi dafa am destinataire bu mu jëm peut-être que moom la ñuy wax caisse noir te assemblée moo koy voté pour président de la république dañ naan nangam la nangam kenn du ko saytu si dara. président mu ko utiliser si fayam bu ne nag bi mu ñëwee fekk fi dara te moom bi muy dugg pale yorul lu suukar yorul lu naan yor na ko te moom si boppam ba muy dugg pale leer na ma mënul faj juróomi nit waaw comme fu mu jëlee xaalis bu mu mën a fajaloo ba naan fekkum dara kon kay fon yooyu te fonds yooyu dafa am lu ñu koy nattalee président am na si expert yu ne yi nekk assemblée chaque trois mois la koy jot waa comme moom bi mu toogee fi ak trois mois am na lu mu jot nan la def ba faj ñooñ dañ ko war a poser question ñooñu wax ne faj na leen dimbali na leen fan la jëlee fond ba dimbali leen ci xam nga loolu dafay am incohérence ñaareel bi mooy danoo taamu Sénégal su kaddu di rëcc parce que ñoom dañ na woon kutóokut bu ñu toogee luy fond politique bëggatuñ ko dégg dañ koy supprimer dem nañ nag ba réalité état dab leen xamatuñu fi ñuy jaar ñu bëgg a def nag naxe boo xam ne mooy léegi da ngay changer tour waaye bu ngeen demee loolu bu ngeen demee assemblée ngeen xool bu baax si man député bi ma wax nee na ma fonds politique si rubrique yi amul donc fonds spéciaux kon loolu lu am la donc ñoom ñi ji ñoon kon gars yi lu nekk sàcc leen def leen loolu tey ji réalité pouvoir dab na leen parce que man damay yàgg wax ni un président de la république war na mën a am nag si ay gafaka goo xam ne war na man di ci dimbali nit ci lu mu gën a gaawee parce que bu ko amul day obligé mu jaar bu jaaree si voie normal bu dee dafay dafay dimbali ku feebar te nekk ci lal hôpital diggante dee dund rek mën na ko indil ay alib yoo xam ne mën na si ñàkk bakkanam te boo jaaree cadre administratif fa ngay jaare di document bi pour dem finance pour ñu décaisser ko du ma nekk kon ñu yor institution yi muy président ba dem ba primature nga xam ne si moom la bokk bokk ak assemblée conseil économique ak yeneen war nañoo mën a am lu ñu bénéficier pour mën di dimbali Sénégal loolu vocation sociale la te loolu dafa bokk ci réew mi moo tax biñ koy wax man leen wax jooju dañ ko teg si suuf ndax boo demee si pays àdduna yëpp am na fonds secret lañ koy wax boo demee France am na boo demee Amérique am na kon donc ñoom dañ dañu maaxalaat dañoo musul jiitee lu mag te xamuñu woon la mooy réalité du pouvoir nag gëmuñu ko woon léegi nag agsi na xam nañ ni li liñ doon jiiñ seen gaay yu si bari amul léegi nag ñu ngi commencé di d'accord que ni ni son ni moroomam yi daan doxalee kon nag lu baax la loolu nag mooy mooy wàccu lekkaat ko kon donc foofu bu waxee ne nag foofu dafa vide man damay wax ne état keesam du mës a vide peut-être que ñoom seen seen xel yi wala seen bopp yi moo moo amul dara moo vide loolu daal laa ci mën a wax. waaw ku mel ni Bougane Gueye Dany wax na ni sax bu fekkente ne président Diomaye la mu wax ni fekkul si fonds politique yi dara maanaam euh, président Macky Sall lekk na lépp euh, kon nañ ko jëli tëj ko. loolu si waaw xam nga Bougane foofu moom day politique. ah suma xarit Bougane. Hmm. ndax euh, président moom pour nga tëj ko. day def haute trahison nga mën ko tëj. mais président boo xam ne fonds politique kenn du ko càmbar. si li ñu ko xam ne mooy fonds spéciaux yooyu kenn du ko càmbar comme kenn du ko càmbar non si tëjee président kon loolu moom waxu politique la xëy na day politique rek waaye nag moom xam na ko en âme et conscience euh, Macky Sall mënoo ko jëli di ko wasa si ay fonds di ko laaj ay yooyu ndax li encadré fonds yooyu wax nañ du fonds yi ñuy discuter bay wax fan la ko jaar ak yooyu kon donc bu waxee loolu moo day politique mais wax boobu moom amul benn solo. aussi euh, jëm si wàllum euh, départu base euh, militaire française yi parce que xam nga ni société civile bi ñu si bari def nañu bloc sax ne base militaire française yi nekk fii nañu fi jóge président li mu si tontu doy na la wala doy la. non président tontu si tontu bu leer waxul oui waxul non moom dafa nuancé waxul oui waxul non. daf si nuancé si li ma dégg man peut-être que si beneen dégg mu fekkee da ngeen dégg ne da leen fiy jëlee man dinaa ko mu def nànk gis nga question euh, militaire muy question défense dafa nekk question yu sensible ndax bu ngeen xoolee Sénégal réew yi ko wër dafa am réew yu si tàkk comme Mali beneen réew bi nekkaat ñun si fële muy Guinée dafay subir ay coup d'état te ñëpp xam nañ ñi Mali terrorisme bi ni mu fa mel ak xeex ba na mu fa mel am na ay appui yoo xam ne Sénégal da ko soxla ci yenn partenaire yi te France dafa nekk ak ñun partenaire bu yàgg yàgg yàgg ban dem ba am sax benn culture kon donc kooku bu fekkee da ngeen am ay accord man li ma gëm mooy doone daar daar na fi jëlee na fi na fi jëlee base jëlee jëlee base militaire pour man loolu waxu loolu dernière wax la mooy lu mujj ndax boo gisee Allemagne Amérique am na fa base militaire nga dem Arabie Saoudi te yooyu dëkk ñoo ñëpp doole fuuf ci lépp ci koom-koom ci lépp te Amérique presque seen base militaire yaa ngi fa te muy duñ si sax def débat kon pourquoi Sénégal ñuy débat te France am na lu ñuy apporter parce que ñu donte am nañ ay techniciens suñu militaires yi ñu xarañ leen ci xam-xam su lépp waaye matériel de guerre boobu bu mën a dëkku ak puissance boobu ñu yaakaare ko réew mi xëy na am na luñ ci am waaye des na lu bari te France nag loo ko mënti xeep ak loo ko mën a wax nag bokk na ci ñi ëpp doole ci àdduna te ñoom am na technologie yoo xam ne ñun dañ ko soxla am na matériel yoo xam ne dañ ko soxla donte bu fekkee ne suñu gafaka mënu ko jël mënu ko jël mënu wala ñu jënd yenn yi mais mun nañu ci defar appui parce que frontières yi surveillance ak surveillance satellitaire yoo xam ne militaires yi xam nañ ko ak man di système de d'espionnage ak système yenn yenn kii ñuy utiliser ci renseignement donte am nañ ci xarañ waaye nag dañ koy soxla ci ñoom te base militaire yooyu boo ko fi jëlee tamit da ngay obligé remplacer ko te booy remplacer dara da nga koy remplacer soit lu ko gën ñun koy li ñu war a liggéey mooy xool partenariat bi ñu seq ak ñoom ci militaire ni ñuy defee ba gagné ci nu ñuy defee ba am ay transfert de technologie formation boo xam ne ñoom ñu koy amee. sunu armée bi am ko nu ñuy defee ñun nag ba propulser dem si ni ñuy développer l'industrie mooy armatique man di man di defar ak yooyu ba àgg fa mais tant que àggoo yenn domaines yi boo bëggee dugg si yenn domaines yoo xam ne mën nga suicider loo sa dëkk pour man loo xam ne musul déranger du déranger ay nit rek ñoo jóg fële xëy na peut-être que ñoom seen xalaat a toll foofu te li ñuy wax maîtriser wuñ si dara naan ay France dégage te te wóor na ma ne ñooy wax France dégage bu ñu dem France rek mooy seen xel la ñuy nekk parce que ñi ki ko doon wax mi Guy Marius Sagna def na fi tournée européenne laaj leen ko ba mu demee France ak yooyu tey jii France dégage am boobu muy wax dootu continué wu ko wala bu koy wax si roq la koy waxee parce que xamuñu woon bañ koy wax parce que yoruñu woon dara xamuñu woon ni état yi di doxee état yi naam Allemagne moo nangu Amérique te am Allemagne ñëpp xam nañ sur le plan économique ñu ci Europe. ba ñi ngi naan moo garanti Europe waa nangu États-Unis ba dëkk foo xam ne digganteem ak Europe di mu soree ay base nekk fa mu bàyyi ko Arabie Saoudite noonu waa asama ak Sénégal pour man pour man ay génnee fi base ak ñàkk fi génnee baas looy mel ne da ngeen war a ñoŋal coopération bi fexe ba yéen ñaar seen lëkkaloo nga ciy gañe mu ciy gañe nga bañ ci perte moom it bu bañ ci perte bu ko defee nag yow li ngay soxla te moom mu yor ko naam àgg goo fa mu mun la ko faciliter parce que tey jii bu fekkee ne jëlee nga fa amoo technologie bu war dara song la ñoom ñu gën la efficace ñu sori la waaw foo jëm moo tax ma ne oh te boobu partenariat am na tamit vocation économique te ñun ak France dañoo yàgg xam nga état yi ni ñuy doxee. Mhm. ak ñun ni ñuy doxee dafa wute. Mhm. kon foofu bu ma sañoon président bi mu def ci nànk tey ci. xalaat ne réew yi coopération dañuy doxalante France daf ñu soxla ñun ñu soxla ko waaye si soxlante boobu nag ah dafa laaj na am xarañte ak xel nooy defee yow ba sa dëkk gañe si moo gën nag wax dàqe baaxul ab réew du dàqe Sénégal réewu teraanga la te teraanga Sénégal boobu moo indi stabilité Sénégal teraanga Sénégal boobu moo tax puissance yu bari bëgg ñëw Sénégal kon topp ñooñu ay société civile boo xam ne li ñuy wax yëpp seen poste tax a jóg ñoon jaruñu déglu. voilà Djibril Diop maa ngi lay remercier bu baax a baax ci tont bi nga tont suñuy laaj. maa ngi lay fay di la gërëm tamit di la remercier bu baax si invité invitation yi ngeen ñu jox pour ñu mën di exprimer ak Sénégalais yi. voilà merci Djibril Diop may fàttali yow yaay leaderu parti politique bi di Front pour la République du Sénégal jërëjëf. jërëjëf.